أبى الله أنا أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد تجاني بكي كنا بني تامل سني وقت ترو برم سبحانه وتعالى برم يرمانك وجابجي نيل بندف يبكي أدنى الآخرة ñu ngi koy sant moom borom boobu subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy borom mbindeef yépp di julli di sëlmal ci ki nga xam ne moom la yàlla bind mu gën ci mbindeef yépp te muy kadoog gi ñu yàlla jagleel ñun mboolem adduna bi yépp muy suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ñu laa bi gannaaw loolu mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran di woo yenent bi ne ko yow yenent bi man maa lay yónni nga nekk ab seede nekk koo xam ne da ngay bégle nga xam ne ñoom ñoo nangoo gëm topp la da leen di bégalee aljanna ak jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala ak dëkk ak yow aljanna nekk koo xam ne aussi tam da ngay xëppee ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo la weddi taxaw ngir di la xeex nekk koo xam ne aussi tam da ngay woo doomu aadama yi wala dangay ngay ombindee fi jëmale leen ci borom bi subhanahu wa taala ci ndigalam nga nekk lumière bu leer naññ boo xam ne da ngaa ñëw ngir niital leen borom bi subhanahu wa taala taggaat yenent bi di wax jikkoom yu kowe yi dégg ngeen léegi sànq ni ko Cheikh Nour doon waxee ci bayan bi dikk na ci yéen ab ndaw ab yenent boo xam ne mu ngi tukkee seen bopp lépp lu leen naqare lu leen metti rek da koy métti waaye nag moom toujours mu ngi dox ci lu leen neex dafay bëgg lu leen neex ku bëri yërmaane la ci yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne ci benn xadis boo xam ne mu ngi ci mustadrak mu ne yéen nit ñi man may kadob yërmaade gi nga xam ne yàlla man da leen dama leen damaa jël may leen leen ci beneen xadis boo xam ne muslim moo ko génnee mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxal boppam ne yàlla dafa tànn kinaana ci doomu ismail yépp mu tànn quraysh ci kinaana ta tànn qura tànn bani haashim ci biir biir ci biir quraysh mu tànn ma man ci biir banu haashim kon yenent bi yàlla da ko tànn ci biir ñum tànn ci biir ñum tànn ci biir ñum tànn kon kenn mënu ko gën moo gën ci lépp kon kan mooy yenent bi su ma fi taxawoon ba bés penc maa wax kan mooy yenent bi du jeex amul kenn ku ko mën du jeex ndaxte amul kenn ku ci mbindeef yi koo xam ne xam na dayoob yenent bi ak place ndax pepp suuf mu ñëwoon naan dañuy jéem a wax montagne bi dañuy jéem a nettali ci montagne wala dañuy jàngal montagne dañ koy ree melentaan bu ndaw boo xam ne sax mun naa am bu ko gëléem wala ñay rombe ñay bu ko rombee du ko gis nan la ñuy wala nan la ñu mën a nettali nen ñay bi nangam ak nangam mënu ko pepp ndox lan la ñu mën a wax ci géej wala océan Atlantique wala océan Pacifique lan la ju pepp ndox mën a wax ci océan mënul ne ñun nag ñu ñooy pepp ndox yi ñu ñooy pepp suuf yi ñu ñooy melentaan yi yonent bi nag moom mooy leneen li nga xam ne moom lañ teg ci kanamam yàlla rek moom moo ko xam yàlla mi nga xam ne moom moo ko tànn yàlla mi nga xam ne moo ko yónni yàlla mi nga xam ne moom moo ko yar jàngal ko yàlla mi nga xam ne nii moom moo ko gindi yàlla mi nga xam ne moom moo ñu ko indil kooku dong moom moo xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus nañ ko laaj ne ko yow yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam kañ nga nekk yenent mu ne nek na yenen te bobu adama mu ci digante suuf ak ndox digante ban ak ndox mu moy bobu adama sax bindaguñ ko kon suñ sang bi sallallahu alayhi wa sallam moy njitu ñu ragal yalla ñep moy ki nga xamne moy sang mbolem ki ñu yoni ak mbolem ku jégué yalla moy xaritu borom bi subhanahu wa taala mom mom motali yenen yi ci mom la yalla lay yu bir moom ñeel jinne yeeg nit ñi ci moom la yàlla ubbee ay xol yoo xam ne dañoo gumba woon ci moom la yàlla déggloo ay nopp yoo xam ne dañoo tëxoon ci moom la yàlla génnee nit ñi ci lëndëm dugal leen ci leer gën leen ci ci réer dugal leen ci njub gën leen ci yéefar yóbbu leen ci ngëm yàlla génn leen ñu génn ci jaamu leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala yóbbu leen ci jaamu ki nga xam ne nii moom mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax yàlla ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónneewuma la lu dul nga nekk ak yërmande ñeel àdduna bi yépp te bu ñu waxee àdduna bi yépp malaaka yi sax ci lañ bokk amul kenn ku des kon yonent bi yërmande la ñeel àdduna bi yépp yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy sang képp kuy doomu aadama mooy ki nga xam ne mooy njëkk a génn ci ab bàmmeelam keroog yowmal qiyaama mooy njëkk dugg aljanna avant kenn ji ci dugg te moom la yàlla jagleel li nga xam ne moom la ñu wax maqaamul mahmud place bi nga xam ne moom lay mooy place bi ñu sant ñépp sant ko te moom la ñu tuddee ashafaatul uzma jëlee nañ ci sunan ak tirmisi yi ci abi said mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man may sang doomu aadama yëpp keroog yowmal qiyaama te loolu duma ko tiitaroo ci sama loxo la drapeau sant sama loxo ci la drapeau sant nekk te loolu aussi itam duma ko tiitaroo amul benn doomu aadama keroog yowmal qiyaama aadama ba lu gën a suufe aadama lu dul ne sama ron lay nekk man maay njëkk génn sama bàmmeel te loolu du ko tiitaroo man maa njëkk dugg aljanna aussi itam te loolu du ma ko tiitaroo kooku mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallama moom lañ ñu royloo nañ ko roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallama alquran wax na ci moom ay aaya yu bëri alquran ji sax bu ñu ci génnee yenente mu jeex mun nañoo génne ab yenent yusuf am saarab lëmm boo xam ne ci yusuf lay wax boo ci génne woon yusuf ci alquran ji du ko wàññi dara mais bi boko ko alquran ci alcorane rek alcorane ji jeex parce que mëno jang alam nasrah laka sadrak ta tuddo keef yoy noonu nekk ci kon yonent bi koko ko ci alcorane alcorane jeex te yeneen yeneen yi bo leen génnee ci alcorane ji dana am lu ci manké dé d'accord waye du jeex kon yonent bobu alcorane inina na ay yu bari yo xamné mu ng koy jangalé comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopam nim jangalé bopam ci ay hadis yo xamné hadith hadis yu fasantikoo la ndaxte yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaanu suñu mam ibrahim alayhi salam mamam Ibrahim عليه السلام ca waa Makka ba ربنا wax فيهم رسولا منهم يدلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يلا يلا innaka antal azizul hakim يننت yàlla na nga yónni ci ñoom ab yenant yenant boobu bu ñewé dafa dana jàng ci ñom sa ay yi di leen dana jàngal li nga xamne ni mom moy alquran dana leen ak jàngal li nga xamne ni mom moy hikma comme ni ko sànq ni ko imam nuru waxe li nga xamne mom moy hadith wala sagesse dana nek ko xamne ku leen di selal lañ kon ñun war nañu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari ndax te yonent bi ak may la ak xewal la ak yermane la go xamne borom bi subhanahu wa taala mom moñu ko jaglel yàlla waxon nako ci alquran ni ne laqad manna allahu ala almuminin yàlla ñaaxee na julli ñi ne moom moo yebal ci ñom ab yonent bo xamne mu ngi tukke ko ci seen bop mu nek yermande ñeñ yàlla def nek ak yonent bi suñu biir ak dundam ci suñu biir ak yermandem suñu biir loolu yépp yàlla def ko muy lan muy loo xam ne dañuy fekk ci safara ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran gi ne yow yenent bi duma mbugal sa xeet bi tànk yaa ngi seen biir duma ma leen mbugal aussi tam fekk ñu ngi sax di jéggalu borom bi subhanahu wa taala wa ma kana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muazibahum wa hum yastaghfirun yàlla melal ko ay melokaan yu rëy rëy rëy rëy bokk na ci sànq rek aaya bi nga xam ne jàng naa ko laqad jaakum rasulun min anfusikum lu ñu métti rek di ko métti amul kenn ci ñun koo xam ne mun naa toog di imaginer ay sëtam ëllëg amul kenn koo xam ne mu ngi toog di imaginer ay sëtam yërmaande gi muy am ci ñoom te moom mu ngi toog di image doon ñu imaginer ñun banaan saxaaba yi akamaa buggoon a dajeeg sama mbokk yi nga xam ne gisaguma leen ñoom ñu naan ko ñun duñ say mbokk mu ne leen yéen samay saxaaba ngeen sama mbokk yi mooy ñi nga xam ne danañ ma gëm ñi nga xam ne ñëwaguñ te danañ ma gëm kon ñun ñoy mbokk yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam te yenenbi bi nak dafa am nuñ koy mbokk nuñ koy mbokk moy dañ ko wara roy te yenenbi bi sallallahu yàlla subhanahu wa taala waxon na ci alquran ne dañu wara top yenenbi bi ndax top yenenbi bi mooy topp yàlla mu ne man yuti al rasul faqat ata allah ku top yenenbi bi topp nga yàlla ku top yenenbi bi top wo yàlla motax tax mu ne wa man tawalla kep ko xamne ne da ngaa dumóoyu te teerul taxaw fële mu ne yonente bi bul sonal sa bop fama arsalnaka alayhim xafiisa yow yebaluñ la ci ñoom nga nekk benn responsable boo xam ne yaay bind seen i bàkkaar ak yaa ngi déedéet yow dañ laa yónni ngir nga jubal leen ku ci bañ nag affaire am la borom bi subhaanahu wa taala waxaat ne wa ma ataakumu rasulu fa xuzuuh lépp lu leen yeneen bi jox jël leen ko taxawee ko ni mu waree wa ma nahaakum anhu nag fantahu lu leen taree baleen est ce que ñu ngi defee noonu dañ jéem a defee noonu parce que moom mooy suñu royuwaay te loolu la ñuy borom bi subhaanahu wa taala jàngal ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dimbali ñu ba ñu jeego ci dox tànk yi nga xam ne nii moom la yonent bi doon dox mbokk yi gannaaw bañ santaatee borom bi subhanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa def atteg nangu ñun jullit ñi ñu war a nangu li nga xam ne moom mooy atteg yonent bi parce que nangu atteem charte la ci ngëm yàlla yàlla wax na ko ci alquran maa ngi gëñ ci sa borom duñ gëm mukk ñun jullit ñi duñ gëm jamais lu dul ne dañoo nangu li nga xam ne nii moom la yenent bi atte suñ diggante kon buñ bëggee suñ ngëm mat sëkk dañu nangu li nga xam ne nii moom la yenent bi atte suñ diggante jaayante ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da def muy comme jaayante ak yàlla yàlla moo wax ci alquran ni ñi xam ne dañuy jaayante ak yow yàlla la ñuy jaayanteel loxoog yàlla loxoog yàlla léegi la laaj mu ngi tege ci seen kaw loxo topp yenent bi day waral bëgg yàlla yàlla moo ne bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ya topp leen yenent bi rek bu ngeen di topp yonent bi rek yàlla di leen di bëgg jéggal leen seen bàkkaar kon bu ñu toppee yonent bi yàlla dañuy bëgg ba pare jéggal ñu suñu bàkkaar yàlla tere jullit ñi ñuy yëkkati seen baat wala ñuy teg seen xalaat yonent bi ñu ne lii yonent bee ko wax ba pare ñu ne ci am xalaat warul wala ñuy yëkkati suñu baat kaw baatu yonent bi warul li ñu war moom ñu koy màggal yëkkati ko ci kaw a kaw ndaxte yàlla loolu dañu ko aaye mooy yàlla nee na bu ñu jiitu suñu xalaat bu ñu koy teg ci kaw xalaatu yonent bi suñuy jëf dedet buñ ko tek ci kaw jëf yenent bi borom bi subhanahu wa taala bégalee yenent bi ak ndam bëggalee ko ak fatxu motax mu wax ci suratul fatxi ne ko inna fatahna laka fathan mubina mu làmbaayoo lu bare bare bare fatxu ci sulhul xudaybiya fatxu makka ga ak yoy yëpp ci fatxu yi la bok ak yeneen ak yeneen ak yeneen yenent bi sallahu alayhi wa sallam yàlla jagleel ko ay jikko yu bare bare bare jagleel ko aussi tam ay jagle yu bare bare bare bokk na ci jagle yooyu yàlla dafa julli ci moom moom malaakaam yi ba pare digal jullit ñi ne dee leen julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak malaakaam yi ñu ngi ànd di julli ci yenent bi kon yéen jullit ñi yéen ñi gëm na ngeen mànkoo na ngeen booloo di julli ci yenent bi day sëlmal ci ñoom yàlla nee ko jëlee ko masjidil haram makkatal mukarrama yóbbu ko ca masjidul aqsa nga xam ne suñ waa suñ mbokk yee ñu ngi fay sonn lool ñu war leen a ñaanal war leen a jàppale moom mooy waa yàlla leen yàlla tiis yi nga xam ne nii moom moo tegu seen kaw ndaxte foofu noonu dafa barkeel moo tax yàlla rañaane yenent bi jëlee ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa ba pare joxaat ko beneen gëneel jëlee ko ci suuf yóbbu ko ca sidratul muntaha indaha jannatul mawa is yaxsa sidrata maa yaxsa fa nga xam ne jibril ca boppam ñemewutoon a buuse jàll fa moom kese moom moo fa jàll sallallahu alayhi wa sallam yàlla leeralal ko dëndam yëkkatil ko ak tuddam amul kenn ku ñemee noddu ne ashhadu an la ilaha illa allah mais il faut nga tek ci wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ñuy liqaam sax dañ naan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yàlla mom moko jaglel borom yenenbi sallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ni won la koy yenenbi sallahu alayhi wa sallam nettalee ci ay jaglem ba léegi mune man may ki nga xam man lañu ñu ubil buntu aljanna ma dugg tant que man dew ma fëgg buntu aljanna du ndax te hadith bi ñewna mune yenenbi sallahu alayhi wa sallam da fay ñëw bés penc ci buntu aljanna dal di feug gardien bi ne ko kooku kan la mu ne ko man la muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow dong lañu ma digal ne naa la ubbil su ma la ubbilul mënumaa ubbil keneen ñu ci beneen xadis boo xam ne imam muslim moo ko soloo abi hurayrata la ñu ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am naa juróom benn jagle yoo xam ne benn yonent amu ko man jagle bu njëkk bi mooy yàlla jox ne ma jawaamiul kalim jawaamiul kalim moom ay baat yu néew yoo xam ne njëriñ li ci nekk kenn xam lu yonent bi am na loolu tuuti lay wax ñu jëriñu ci ay njëriñ yu dul jeex mu ne yàlla dimbalee na ma ak ragal mooy bu takkoon xare lu mat weer fa jëm dañu tiit ba ba mu yegsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla daganal na ma lépp loo xam ne màng la mooy li nga xam ne dañ koy amee ci guerre loolu noonu matériel yooyu noonu ñu fay ja kiyee bu njëkk ba daganutoon mais dafa dagan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ma suuf si lépp muy lu laab ak juma ak jàkka ñun fu ñu neex mun nañ faa jullee mais bu njëkk ba xeet njëkk ya amuñ droit jullee fenn fu dul seen place jaamukaay yàlla yi kese yàlla yónni ma ci mboolem mbindeef yëpp te yeneen yi kenn ku nekk ci sa xeet lañ ko doon yónni ci man la yàlla limité ci man la yàlla jeexalee mboolem yeneen yi yépp kon ku am ku mel noonu da ngaa war a fexe nuroo ak moom mais bu ñu génnee fii di mel nu ñu neex te yàlla yónni ci ñun ci ki nga xam ne moo gën ci mbindeef ba pare royloo ñu ko kon ñun ñoo jëmut fenn ñun ñoo ñàkk fayda ñun dañoo war a nuroog suñu yenant li ñuy war a nuroog rek suñu yenant nag mooy lim ñu digal ñu def ko lim ñu tere ñu bàyyi ko te ñuy bëri li ñuy julli ci moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallama ndaxte moom ci boppam moom moo ne ci xadis boo xam ne benn saxaaba moo ne dafa ñëw ne ko man de damay julli ci yow yenent bi lu baree baree bari es ce que sama julli gi du ma la defal un quart bi yenent bi ah loolu de baax na mais boo yokkee moo gën ci yow mu ne kon def naa ko xaaj bi mu ne ko ab ah baax na de mais boo yokkee moo gën ci yow mu ne ko def naa ko ñaari ceer yi mu ne ko ah léegi baax na de waaye boo yokkee moo gën ci yow mu ne ko jël naa kon sama julli gi yëpp defal la ko mu ne kon bu boobaa yàlla dana la fekk sa mbooleem njàqare àdduna yépp ak alaaxira te danañ la jëggal sa mbooleem bàkkaar yépp kon ñun kay am nañ loo xam ne buñ bëggee buñ bëggatul am njàqare ci am nañ loo xam ne moom la ñuy taxawee buñ bëggatul amay bàkkaar bëgg dugg aljanna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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمون الله أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني